Bamba mi ngi koy évoqué léegi mbirum Sidi euh, Diop moom itamit ñu def ko euh, sous mandat de dépôt nekk ni démb ñu war ko rek jugé lundi ci flagrant délit moom artiste euh, bi nga xamante ne ni mooy Sidi Diop ñu jàppee woon ko rek ne dafa doon dawal te yorul permis de conduire waaye tamit oto bi mu yor amul kayit amul assurance mu nekk tamit mbir moo xamante ne ni. Euh, jot na ñu taxaw ci def ci benn taxaw seetlu parce que nag euh, nit ku toll ni Sidi Diop aussi di dawal san permis de conduire loolu aussi euh, war nañ di xoolaat bu baax a baax suñu ay responsabilité personnellement ku nekk xool li nga war a def tey jii Sidi Diop ñu def ko su mandat de ko war ko àtte lundi maane nekk na mbir moo xam ne kenn yéenewu ko waaye aussi yaakaar naa ne réew noonu la war a doxe ah, d'accord léegi réew noonu la war a doxee. je suis waaw waaye Sidy Diop nag wax dëgg neex yàlla man dama kaa commencé xam nga démb ni ma doon mhm. waxee moom ak tey du dina xaw a wute mhm. parce que démb ba ñuy def émission fekk na mu ngi en audition ñu koy mu ngi jàkkaarloo enquêteurs yi ba ñu paree gis nañ ay éléments yu bees yeneen yu ci am mhm. Sidy Diop da doon dawal sans permis sans assurance ñoom assurance bi sax dañ koo tegee nee hmm. mais problème bi mooy lan moo tax Sidi Diop ñibbiwul dem parce que mënoon nañ ko bàyyi mu ñibbi mais lu tax ñibbiwul dem c'est parce que tontu yu mu tontu moo indiwaat yeneen enquête. maane nga dawal san permis ñu jàpp la bàyyi la nga ñibbi. déglu rek ma wax la. waaw déglu rek su ma bàyyi la dinaa nga lu tax ma wax la loolu. mënoon mm. na gën a allégé mais tey jii euh, Bamba Fatou. Mm-hmm. déjà ñu jàpp la ba pare nga dem jox benn version. Mm-hmm. ñu yóbbu la. nga jàkkaarloo enquêteur nga joxaat beneen version. Mhm. Sidi Diop nee na. Mhm. dafa moom lu tax muy dawalee nii dafa amul sax permis national. Mhm. maanaam permis Sénégal bi ñuy defaree fii amu ko. permis international la am te li ko ko may mooy tournée euh, internationale yi muy def. fan la ko amee Gambie. nee na ñoom ñoo ko délivré ñoom ñoo ko jox permis international boo xamante ne. partout dans le monde mën na ko fa yóbbu di dawal otoom sans problème mhm. et que permis boobu moom am na ko waaye amul permis national on se pose la question kañ nga mën a dem am permis international te amoo permis national au loolu c'est un mhm. de deux kon si yan condition lañ ko joxee permis yi mhm. permis boo international boobu sans pour autant mu ne moom musul am permis national bu biir bii nii ñu am ni yan condition la ko amee mooy de deux. beneen bi mooy tey jii nii moom Sidi Diop nee na dañoo sàcc permis boobu ci otoom maanaam. Mhm. dafa yor doon dawal oto mu yoroon permis boobu moom la mosoon a circuler. Mhm. am bës mu wàcc am lu mu doon def. ba fa ay bagage ñu sàcc bagage am yi sàccaale permis kaa moom ñu yëguñu ko wax dëgg neex yàlla ak ni ñu xamee euh, milieu showbiz. buñ leen sàccalee seen parce que daal sax dañ koy médiatiser. Mhm. mais yëgu ñutti nañu donc mu doon mbir moo xamante ne dafa dafa dafa suscité waat beneen euh, euh, euh, beneen enquête. Mhm. mi nga xamante ne dañ koo war a def. Mhm. permis international nga am ko amoo permi national au préalable. nan lañ la ko délivrer nee na Gàmbi la ko amee. donc tey jii nii est-ce que nekkul lu xam nga loolu day jëwaat ba tey ci corruption parce que corruption tant que jógewul si réew mi délit rek moo fi am. dara du baax léegi nag kaaw Sidi Diop comme noonu la demee moo tax dañ kaa téewaat mhm. ba lundi incha allah ñu war ko joué ndax dafa am beneen enquête bu ñu war a def en cours mais ba tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ay ay nit yi intervenir ba léegi ñu ngi ñu ngi def intervention à ce que ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi ndax dafa am ay contrat yu mis ñëwoon ba pare te war koo dem joué ji ñooñu ba tey ñu ngi continuer di euh, demande à ce que ñu euh, alléger affaire yi libéré ko wala ñu condamné ko. à sursis ba pare amande ko bu ko defee mu dem wuti ji permis de cela bu mun a continuer di defal li nga xamante mooy liggéey mais en tout cas Sidi Diop moo wax dëgg na yàlla moo tooñ moo dugal boppam te lii exemple la si ñi nga xamante ne. Mhm. ñoom ñooy célébrité yi nekkul ne da nga nekk star rek. Mhm. boo wàccee sa vitre oto nit ki seen la dala war a bàyyi mu dem ay amul yaakaar. dañ see waroon a am empagaay boobaa ñëpp dinañ régler amul président amul ministre amul kenn je pense que loolu bu ko defee réew mi dina dina réglementé waaye si jëm moo tooñ dañ xaaral ni la ne ñu xool enquêteurs yi wala juge bi lan lay fas yéene jël comme décision voilà naka lay def ak moom Bamba euh, dawal sans de conduire moom la Sidi Diop def ñu daal di ko <laughs> def li nga xamante ne nii moo di mandaa de dépôt war ko juger lundi waaw xam nga taay may seetaan sax sama xarit Diagne Naar muy mm-hmm. wane oto bu mu jënd bu ay centaine de de millions de francais CFA. Mm-hmm. ma nag je pose la question nag ngay jëndee oto bi ni mel te lii au préalable li nga xam ne moo gën a am solo amuloo ko. waaw question la boo xam ne maa ngi koy samp. Mm-hmm. Euh, beneen bi it mooy dafay wane rek que Sénégal li fi amoon amatul fi. maanaam bu njëkk da naan am tur. lu la neex nga def. ku la neex nga fule ku la neex nga bëgg après du mujj fenn. Mhm. on a même vu l'image de Wally ak benn agent bu ko arrêté woon. boo xam ne am na nu mu waxee woon ak moom. Mhm. Euh, donc li lay wane tey seulement ne nag Sénégalais yi ñu ngi di yem. te ñu jëm ci wàllu yoon moom. Mhm. amul kii am na tur kii amul tur même si que am na cas yoo xam ne mën nañ ko fi indi et cetera et tout en tout cas kenn ñaanalut nit kaso te comme ni ko maan waxee je pense que le 6 xaw ma war na ne war na ko jouer mais tey boo demee suñu ay texte moom moo ne kat tey nit warta dawal sans permis warta mënta dawal également sans mu li nga xam ne moo di euh, et cetera oto bi am ay papier mhm. maintenant je pense que moom nekk dans l'illégalité maintenant bi ñu ko dégloo pour man li gënoon yombal mbir mi rek mooy mu reconnaître ne dafa juum bu reconnaître ne dafa juum peut être du ñàkk ne enquêteurs yi kat dina am nañu waxee moom mais xam nga peut les artistes ils pensent intouchables que kenn dina laal kenn def nangam et tout mhm. euh, mais peut être lii dana gën a yeeyaat nit ñi mhm. dina gën a yeeyaat également ñi nga xam ne am nañu tur ñu xam ne kat réew mi lu fi newoon wandi na maintenant nag li am solo ba am solo mooy altine la ñu koy àtte donc dina taxaw avocat am dina ñëw juge bi également dina ñëw. bu fekkee dañ ko war a daan aussi dinañu ko daan mais gëm naa ne aussi peut-être li ñu ko def nii rek c'est un exemple palpable boo xam ne. Mm-hmm. dina mën a permettre bu ëllëgee wala képp ku am dayo bi mu am aussi nga bàyyi sa xel xam ne kat waruñu ne ci réew boo xam ne. Mm-hmm. da def loo xam ne jaarul yoon te boo demee en France. nga dem États-Unis et cetera mais amul kii mooy. Euh, xaw ma kaana naka nangan amul fa cest dire que da tegu ci yoon ay texte la ay texte il hmm. mais je pense que man la rek siiw naa woy naa génne naa après li ñu ñemewul def souvent euh, réewu keneen moom la ñëw euh, def ko Sénégal parce que am na yenn yi nga xamante ne nii euh, nañ ko wax ñemewoo dem France nga def ko fa yenn dawalin yi sax ñemewoo dem à l'étranger nga def ko bu ñu nekkee fii Sénégal peut-être laisser-aller bi moo bari woon aussi waaw parce que am nañ tour maintenant xam nañ gars <laughs> fii la ñu gis ab doomu xaw ma benn doomu ministre xaw foofu ay xale finalement moo mm-hmm. ma jël moppal ko maintenant nag.

ma gis nga bu mu demee au niveau de euh, fi nga xam ne moo di Bercy. je pense que quand def na fa lu am solo. donc mm-hmm. euh, gis nga euh, àdduna bi yëpp fa ñëwoon ñoom Sidiki Diabaté et tout il a porté le drapeau du mm-hmm. Sénégal maintenant rien que ça aussi je pense que rek war na mën a tax ñu doxal Clémence mais nag. loolu tamit war na mën a tax moom itamit mu bàyyi xel ci lu bëri loo xam ne voilà mu nekk aussi un exemple parce que. te gëm naa ne su bàyyeekoo fii <laughs> dina dem wuti permis nekk dans les voilà dans nekk dans les règles parce que là aussi man foofu je comprends pas euh, permis international bu foo mën a dem dawal sans que amoo permis national mais là aussi ça devient euh, problématique donc du coup daal <laughs> day na waar daal feneen sax maa ngi gis ñu bind euh, permis boo xam ne Gambie la ko amee mais volé waaw gis naa ñoom waaye waaye ñoom permis international loolu léegi peepu international boobu daaj sàcc si otoom. gàmm bi ñëpp ah boobu la ñu sàcc. mais buñ ko sàccee kay euh, war na am. certificat ah, mais kon moom amul permis amul permis kon moom ah. amul permis mais na fi gars yi dafa amul permis bëri nañ de. bëri na oh. ah. yi nii xaaj bi sax amuñu permis yow moom xam nga li ma lay wax. ak <laughs> ay maane. ah béeréem rek lay teg si kii bi de si oto bi <laughs> parce que na ma ak oto yi amul kay. waaw mais ñoom loolu peut-être dañ koy dawal parce que mm. voilà ñoom seen biir la quoi. mais ah, am na si ñoo xamante yooyu moom la may seen jabar yi am na ay papiers yu ñu leen utal te fekk du ay papiers oto foo ko wane dañuy xam ne yow lii soit jabaru policier wala nangam ah, dañuy xam ne lii. voilà mais c'est pas normal. c'est pas normal. Mhm. booy joxe exemple da nga koy ji moi je connais des gens yoo xam ne am nekk rek lépp. dañuy am permis ah, si mais kayit euh, euh, policier bi daw soo am kayit normal. c' est très rare allez-y. <laughs> yaa ko fa ñëw. maa leen ko wax samay chéri lañ. mi ngi noonu ah, waaw ça se voit que ne say chéri lañ. Uh-huh. Euh, bëri na dañu koy gis surtout oto yu amul kayit yi dafa mel ni kii sax la ñuy transport irrégulier yi ñoom moom yaakaar naa ne fu ñu leen